alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sihadi bi furudin wa sunan sakartuhu liannu qad sahani liwatani bihi nafa ma anfani أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق بسم الله الرحمن الرحيم alhamdulillahi alladi jaalana xayra ummatin uxrijat linnaas wasalaatu wasalaamu ala nabiyi alhuda wa rahma sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa xadimihi wa man ila yowmi diin bismillahi rahmaani rahim barke cheikhul xadim jërëjëf Serigne Touba est-ce que Serigne Touba ci Serigne Touba borom Touba moroomantewul bokki jullit yi bokki taalibe yi noo ngi leen di nuyu yéen ñëpp bokki Sénégal gi yëpp kenn ku ci nekk di la fekk fa nga nekk di la balu àq di leen nuyoo fii ci Touba Mbacké almaxruusa euh, fii ci Saxum tuubaa seetu murit yi ci waxtaan wi ñu walla jataay bi ñu tàmm def ak yéen ajjuma ju nekk muy albayeen xam ngeen ni démb am na bu ko jiitu woon mooy jataayu murit saadix nu doon fàttali sunu bopp di fàttali ñépp ci war may tuubaa loolu ku dem ci Saxum Touba ci YouTube bi rek di ko gis démb defoon nañ ko tey nag ñu ñëw ci albayaan muy jataay bi ñu am ajuma ju nekk walla bu ajuma jàlle itam bis bi mu war a mën na ñëw rek mu ñëw ko waaye jataay bi daal albayaan la tudd yaakaar naa koy bëgg a miin tey di tolloog ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru mai 2022 di ñaar fukki fan ak juróom-benn ci aw kori ci 1443 Égir nu leen di nuyu nag di balu àq ñépp di ñaan yàlla suñu borom boole nu jéggal di sant yàlla ci xéwalu nuyu bari yim nu defal di ko gën a sant ci boole gim nu booleeg Serigne Touba di ñaan yàlla nag ci ndigalam aku tabeem aku ñeewanteem lu ko neex rek lay def li koy neex yàlla na ci boole yàggal fi Cheikh Mouhamadul Mountakha taw féexal ko ci risala bi mu yor muy mission bi tool bu lislaam bi muy liggéeyal Serigne Touba te ñu dénk ko Serigne Touba mu di ko liggéey nu ànd kook moom te day ci ngërëmul Serigne bi ba mottali yéeneem yépp jëfe ko ginnaaw loolu ñu sant leen bu baax gërëm leen bokki soppee daare Saxum Touba mi yépp góor ak jigéen mooy ndaw fu waay ma nekk ci biir réew mi bitim réew ak ñi topp jataay yépp di ñaan yàlla rek ñu daje ci ak tew ci suñu boroom ci yéene ji nu animé ba tax nu di ko def ngir mu doon njariñ euh, lépp lu ci rëq-rëq nu koy jégglu tey nag albayaan dafay jëm ci tolluwaayu réew mi ak ni réew mi di doxe nu am ci ay taxaw seetlu taxaw seetlu yooyu nag du doon répété li fi jaar rek waaye lu ci nekk dañuy wax lanu xalaat ni buñ ko defoon loola mooy gën loola la ñuy wax waaye du ñu wax rek ay fee yu am ñu wax ko déedéet loolu du analyse bu ñu ko dee càmbar lanu yaakaar ni bu ñu ko defee mooy gën loola la ñuy indi mën naa am nag ñu tudd la nga xam ni moo waral la ñuy càmbar loolu mën naa mën naa am kon li ci jiitu tey ci réew mi bu ñu ko dee xool fi nu toll nii bu ñu ko doon xool liñ ci war a jëkk jëkk wax lépp day jëm ci lu ñuy wax insécurité maanaam nit ñi nekkuñu ci ak dal ak jàmm ci wàllu li ñuy tiit walla li ñuy ragal bi ci jiitu nag mooy dañuy jël sunum njaal di wax inna lillahi wa bokk yi nga xam ne ñoom la seeni doomu faatu ci hôpitalu Cheikh Abdoul Aziz Dabakh yàlla na ko yàlla yërëm te yokki leeram te teg loxo ci njabootam jël sunum njaal di ko teg ci loxol xalif général di Tijaan ak bokki Tiwaawan yépp ak bokki jullit yépp bokki réew yépp di jaaree seeni bokk ñoom ñooñu seeni tuut tànk wàccu liggéey ci anam bu metti waaye nag foofu dañ fiy dellusi rek di xam ni moom metti na lool yàlla suñu borom ci alquran boo gisee turi yàlla yi arrahman arrahim alxafuur alafu asabur la tudde boppam asabur yàlla néewul asabir wala asabur moom rek moo mën a tudd asabur mooy moom moo moom moom moo créé ko bind yàlla bind muñ moom moo tax bu doon asabur waaye lii daal bokk yi nekk ci waawoon ak xeet yu mel noonu euh, dëgg-dëgg tar na lool lool lool lool nun nag bu ñuy wax jullit ñi dañ naan assaabiruuna muñkat yi assaabiriina na gis nañ ci alxuraan waaye yàlla nag li tax mu ne assabur mën nañ koo xool ci lii ndax lii métti na métti koo xam ni da ngay jàpp ni assabur rek moo ko war a mën a àttan moo war a mën a fekk lii man koo taxawal fi saase te taxawalu ko sun borom mu bind muñ moom muñ bi mu bindee mu muñ moom muñ nag danoo digal nuy muñ kon moom muñ du jafe ci moom. ndax moo ko bind moo ko moom itam lii tax ñuy muñ it moo koy def kon yàlla na leen yàlla mooy xolub muñ may nu ko ci lii xew teewoon ak yi mel ni yooyu yépp ci réew mi te yàlla mi nga xam ni moom moo ko def yàlla na leen wuutalal lu leen fàtteloo loola te ñoo ñee dem lépp lu ñu fa naroon def ci lu baax seen way jur yi nga xam ni am nañ leen yàlla na barke bu wàcc seen way jur te teg loxo ci seen njaboot loolu daal mënuñ koo bañ a wax di ànd ak ñoom tiis wi lañ koy wax duñ ni nag danoo am lu naqari ndaxte yàlla am na foo xam bu fa eggee duñ ni aw naqar lay doon ndax yàlla du seet jëf-jëfam mu neex ko ba noppi nga ne daf maa naqari loolu da dul doon teggin mën na noo jàpp nag aw tiis la métti na loolu ma ne su ko wax waaye danoo am lu naqari loolu am na foo xam ne niveau ba doo ko fa eggale loolu nag li ma ci wax mooy tey bu kenn jàpp ne dama yàlla moo def loolu jeex na déedéet dafa am ay responsabilité ci la xew Tiwaawan ndax yàlla moo wax ci alxuraan ne wala kum fil qisaasi xayaatun yàlla ulil albaab yi kon ndekete du yàlla rek mooy rey am na sabab bu tax dee di am buy jógee ci nit ndax bu loolu am woon yàlla dañ ku rey rey leen ko kon danaan yàlla da lay won ku rey na ngeen ko rey la wax ku rey rek na ngeen ko rey ku te tey ko nañ ko rey kon xam na ni nit dina rey loolu il faut ñu bàyyi ko xel. loolu pour situer responsabilité bañ bañ bañ rek ni mbir mi yàlla yàlla rek déedéet déedéet waaw kon loolu lañ bëggoon a leeral foofu te itam euh, yàlla suñu borom lu muy def lu ne am na sabab am na sabab dafa am fu muy jaare loolu nag ginnaaw ay dof nekkuñu fi ay nit lañ ku ne yor responsabilité responsabilité mënuñu koo bañ a situer bu noppee nag nga soog a egg ca dogalub yàlla ba moom loola beneen mbir la moom waaw kon daal loolu lañ ci doon wax li ci jiitu nag ci liñ ciy jàngat mooy lu xew Linguère ñeenti liir faatu ci Linguère 2021 ci ak lakk ci hôpitalu Magatte Lô 2022 fukki lii rek benn faatu ci Tivaouane te xalif général di Tidiane toog ci Tivaouane ni leen hôpital bii ni ngeen nu ci dimbali dara baaxu fi dara jagu fi matériel bi baaxul ñu toog di sàggan di sàggan état di sàggan ba lii xew tey bu fekkoon ne ba mu ko waxee ca suba sa rek weer wa ca topp jël nañ matuwaay yépp système d'alerte rénover lépp wut matériel kon mën naa am lii du am waaye état moo deful li ko war benn xalif général de Tidiane waxoon na tolluwaayu hôpital bi bon gu mbon ak yi di nekk ci réew mi yépp yu ne mel daanaka noonu la mel ñaareel ba war nañoo jëlee expérience ci hôpitalu Magatte Lô bi nga xam ne ñeenti liir faatu nañ ci ak lakk même chose li xew Tiwaawan rek moo xewoon foofa kon lan la état di jariñ duñ ci jàngi expérience ñun kat nan def attention bala noonu la da hôpital yi ne ci réew mi yëpp fi crèche yi nekk néonatal yi ñu soog a juddu te di leen faj nañ jóg wut système d'alerte wut anti feu lépp mën na ko waaye milliards yi ñu fi tasaare diggante vingt mille ne deux mille vingt et un ak léegi yàq ko jëmale ko fu ne demoon na ci hôpital bu ne sécuriser fa ñuy def néonatal yi. sécuriser crèche yeeg lépp mu sécuriser ko yaakaar naa ne loolu loolu lañ ciy wax amul benn werante foofu moom jëru sori état mooy responsable premier ministre bu ñu wàcceeg ku ñu sanctionné yooyu yëpp te état mi ngi sanctionné loolu dinañ ñëw ci kanam ci wàllu sanction diggante sanction bi yàlla ak sanction bi état xam nga ginnaaw état rek moo am sañ-sañ sanction sakkantuma laa yàlla su borom kon nag bokk yi bii beneen la ci télé goo xam ni. wala ñàkk ñàkk yittewoo soxla yi nit ñi ci hôpitalu Tivaouane ak yi mel ni moom yépp dinaa leen wax ay at ci ginnaaw juróom-ñetti at ci ginnaaw am na ku da am amoon malaise dem hôpital régional bu cees bi ñu ko yóbboo 30 minutes la def ñu ne nañ ko évacuer benn hôpitalu privé du ma tudd droit hôpitalu privé lañ ko yóbbu ndax matériel ba ko waroon a traité amu ko. sëñ bi loolu lu ko du gën a doon gàcce am na juróom-ñetti at wér na ma ne est-ce am na fa ba léegi maanaam amul matériel bi ñu ko war a traité ba ñu yóbbu ko ci hôpital privé kooka dem foofa ñu def fa fukki fan ak juróom wala ñaar fukki fan di fay ci hôpital régional ci Thiès waaw appareil ba fa am amu fa waaye hôpital privé bee nga xam ne la moom am na ko te loolu ak bari ci réew mi loolu jàll nañ ci kon yaakaar naa ne bu ñu ci bëgg a rek mooy. nit ñi moom ñëpp am nañ lu leen tiis lool am na ñu métti lool ci càggante boo xam ne état bi sàggan na ko hôpital Tivaouane nag moo feeñ tey waaye boo déggee ki ma dégg muy wax ci hôpital Dalal Jàmm di fa liggéey wax na ni daanaka matériel ba bu fa nekkee itam formé wu nit ñu fa nekk wala matériel ba nekku fa kon hôpital yépp la daanaka xanaa kay bii dogal gi daa egsi fii rek am na leen itam ci système de sant bi wàcce nañ ministre bi ak fal nañ keneen ak yooyu yëpp waaw. mais li ñu ñëpp wax muy auditer système santé bi ak milliards yi ñu ci dugal daanaka junniy milliards jege na ko 2012 ba léegi loolu war nañ koo gëstu ba xam war nañ ko gëstu ba beneen bi topp mooy beneen bi topp mooy amuñu ressource humaine maanaam da ngay dégg ñu la infirmiers yi matuñu Sénégal médecins yi manqué nañ ñenn ñi immigré nañ dem dem bitim réew di liggéey ay médecins. sage femme yi am nañu retraite waaye léegi luy tee état bu fekkee ne am na vision li fi nekk lépp ci corps médical boo xam ne dañu retraite ci secteur bu rek mu delloo si leen te kenn ku ci nekk yaa ngi ak sa kàttan tey nga daq faj ku ci retraité ku ne toll dem nga ubbi sab clinique am nga ci droit wala nga dem di defi leneen ginnaaw noonu léegi amaguñu ay ressources humaines yu doy ñi jàng médecine ñu ci réew mi infirmière aide infirmière sage femme médecin anes ñi anesthésié ñëpp ay spécialiste dara am na ñoo xam ne retraité ñi ngi toog jotatuñu état ak dara état nag bu amoon xel li muy def moom ñoo ñu lay jël dellu siwaat leen li fekk muy mën a amaat ressource humaine bu doy boo xam ne hôpital bu ne lañ fa soxla ci nit dina am waaye yow nit ñaa ngi retraité même bu dee dem ba soixante-dix ans li fekk mu mën a faj dañ ko fa war a bàyyi comme yow amoo nit ñu mën a faj te ñaata nit retraité mën naa ci jël ay ñu mu xam bu ma jëloon tey ji Tuubaa rek <laughs> docteur Mame bala Mboup ñeneen ñi mel ni moom ñëpp ñoo xam ne retraité nañ tey te tey lañ gën a mën a faj tey lañ gën a nekk en état pour dimbali Sénégal beneen bi ci des mooy système de santé dëgg la xëy na ab ministère des na jox koo xam ni dañ koy fal mu nekk fa mais li gën a yenu maanaam l'homme qu'il faut à la place qu'il faut sëñ bi nañ waxante dëgg maanaam tey ji Eva Marie Coll Seck ak ñi mel ni moom. xëy na kii fi nekk ku bees ki moom médecin la waaye tey luy ndey Diouf saar nekkoon fi jéey yëpp di am catastrophe yi am te am ñoo xam ne ñoo jàng loolu ñoo xam loolu ñoo xam système médical bi nga xam ne moo war a adéquat ak Sénégal ñu teg leen fee jël ay politiciens teg leen fa ci directeur yeeg lépp loolu mooy état boo xam ni li muy def euh, tegu ko fenn tegu ko ci yoon ak it ñàkk man wala ñàkk bëgg sam réew ndax mënoo ni kii lii la jàng xam na ko loolu rek ay métier nga jël keneen koo xam ni gestion la mën naa jàng gestion wala mën naa jàng sa comptabilité nga yóbbu ko def ko directeur ci hôpital wala directeur ci benn benn kii ah. maanaam bari na ay direction yoo xam ne ci biir ministère de la santé syndicalistes yi wax nañ ko ñenn wax nañ ko boo fa demee ñee ko jiite mosuñoo xam luy lu jëm ci lenn santé abdu xamuñu dara ci santé ñu teg leen fa te loolu politique mooy tax kon nag loolu dafa war a jeex loolu moo indi coow li yëpp foofu daal lañ ci yem dem recruter ñi retraité delloo si leen li ci nekk diggante sage-femme ak yëpp am na itam loo xam ne responsabilité état la tey lakk gi am ci Tivaouane bu fekkoon ni état bi jël na ay matuwaayam def système d'alerte anti incendie yëpp yi ñu fa war a teg. nga xam ne tey ji bu bu amoon bu lakkee sax lu mu bon bon bon sapeur pompier dina am taw ñu 40 minutes balaa loolu di xew mu réglé ko mais loo xam bu tàkkee benn rek jeex na kooku responsable bala ñoo xool responsabilité kenn nañ xool état bi nga xam moo fa waroon a yóbbu ay matuwaay yoo xam ni day mën a tax lakk gi du am kooku mooy premier responsable ñi ci des nag ay victimes lañ ñu soog caa topp. saal bu tàkk fukk xale dee ak benn la ci sage man lan la ci infirmière aide infirmière la man lan la ci man. court-circuit bi ñu wax ndax am na waaw foofu daal lañ ci mën ci wàllu googu beneen bi topp mooy bu dee ci wàllu sécurité bi ak ñàkk kaaraange gi xam moo am ci réew mi am na ci loo xam ne du état moom xam naa foofu moom ñëpp dama ne du état nit ñaa ngi jiiñ état waaye du état mooy lan mooy éducation la loolu Sénégal yi seen bopp yarub diine bi ñu war a yar njaboot gi ak ngor ak jom ca maam yi lañ leen daan yare ak ngor ak jom ak diine loolu moo amatul li tax may wax loolu mooy dee yu bees yii ci fan yi ñi fi dee ñëpp dinaa ko indi ku ci deeti nañ seet ban catégorie lañ koy catégorise ka woon ca Ndar université Gaston Berger étudiante ba xale bu jigéen ba ñu rey ko loolu est-ce que police mën na ci dara wala gendarmerie kooku xale bu góor ba ko doon rey bu fekkoon ne éduqué nañ ko éducation religieuse wala ngor ak jom na mag ñoroon def dana jom ba jël xale bu jigéen dem moom ba ca àll ba mu def la muy def ba noppi rey ko fibrique religieux bi waroon ne ci moom alwaasiu diini bi waroon nekk ci moom nekkul ci moom kuñ tarbiya ci daara ji nga tarbiya ba noppi ba wàcce la nga dem jom ngaa def loolu kon kooku du question état état mënul 18 millions kenn ku ne mu tegal la benn policier wala benn gendarme ci sa wet kooku ba muy def loolu état yëgul kenn yëgul nga ñëw ci Pikine barki dem ridus soxna si gay ñu faat ko ci fi mu doon liggéeyee jam ko fanweeri paaka ak juróom-ñaar ki ko doon def lan la ci police man foofu ñaari responsabilité moo fi am ba tey éducation moo manqué xaas yi mu baax su fekkoon ni yar nañ ko yar bi ñu ko yar yarub diine bi ñu ko war a yar ak yarub ngor ak jom yarub mag ña àdduna lu ko jaral loolu mukk kon foofu question d'éducation la ba tey néew ma nag yaruñu ko ndax léeg-léeg échéance dina am ay waajur dinañ sonn ci doom lool dugal daara def lépp te du tee të loolu nag téeméer yu nekk fanweer fukk dong la ci doon wala juróom maanaam 5 pour cent lay doon waaye ku ñu yar moom teg la ci siraatal mustaqim am na yoo xam ni doo ko def kon ñaari kaa nga xam yow éducation bu baaxul ci famille moo waral ñaari ñu def li ñu def ba muy dem di rey kooku ci biir liggéeyukaayam di ko jam juróom-ñaari paaka xalaatul yàlla du yar ci diine du ko jàng diine du xalaat dara. kon kooku éducation boo ñëwee bari ñi xale bi ñu fi reyoon te xale bu góor bi xale bu jigéen bi àndoon doon jëflante mu bett leen ñu bañ mu wax ko bañ ñu rey ko loolu itam manque d'éducation la bu ñu leen yaroon xale bu góor boobu ak bu jigéen ba du ñu egg foofu ba keneen di leen gis bañ di ko rey ci xale bu ndaw ba tey diine nekkul foofu ñu leen yarub diine loolu état yoonam néewu ci soo demee ci ka jëloon xale ba yóbbu ko ca teen ba ca Kolda sànni ko ca teen ba loolu état mënu ci dara éducation la ba tey éducation bu ñu ko éduqué woon du def loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ni bu ci nit faatootee ci Sénégal nañ xool ba xam ndax agresseur la déedéet agresseur am na loo xam ne mën nañ wax ni agresseur bi ko def fekk banque nga toj ko wala nga fekk di jam ko ci yoon wala waaye yii dee li ci ëpp bu ñu ko xoolee li ci ëpp yëpp ñi ko def ñëpp bu ñu leen éduqué woon tarbiyé leen teg leen ci siraatal mustaqim ba nekkee ndaw buñ màggee duñ def li ñu def parce que seen diine ay jatan ay frein ay chaîne chaîne yoo xam ni seen conscience lay téye diine ku ma a def wala yaru mag ña nañ la daan yare ci ngor ak jom ak loo ñàkk muñ ko kon ngénte du la jaral ngay dem di rey nit fanweer paak juróom-ñaar kon li ëpp ci rey yi bu ñu ko xoolee itam buñ ni agresseurs yi la buñ ni incident état li responsabilité moom li nga xam ma nañ ko cee wax dara moom mooy xaalis bi ñu pasar pasaree 46 départements yi département bu ne ñu jënd ay oto yóbbu fa yokk ressources humaines ci takk der yi ñu def patrouille guddi ak bëccëg Pikine tey bu fekkoon ne am nañ 50 oto mëtu ko sax 30 rek yoo xam ne guddi gu nekk dañuy circuler wàqi naan ñetti mbaar fu ne ñu dugg fa bëccëg gi itam ba ci ay civil ñu wut leen ñuy civil dugg ci nit ñi mais loolu la état war a def loolu la état deful nag. cinquante voitures ci biir Pikine lan lan lay coûté oto matul un milliard nga wut ñoo xam ne dañuy patrouille la ñu doon vingt quatre heures sur vingt quatre dañuy def patrouille su ko defee def kat yu ñaaw yi dañ ne ah lekkat ku yóbbu toog ndax oto booy seen fi mu toll bul xam ka ci nekk lu muy nangam nangam loolu mooy liggéey bu état mais état mënul kenn ku ne mu jox la benn mu topp ci yow li nag mooy nit ñi ñoo war a yar seenu njaboot bu bu ëllëgee kenn ku ci nekk boo wéetee itam da nga ne sama baay yaroon ci loolu diine wax na ma lii wala nangam ak nangam. waaye manque d'éducation bari na ci lu mu waral ci lii ngeen di dégg lépp lépp lépp lépp kon loolu dañu ci bàyyi xel baax a baax leneen li topp nag te ñu war koo indi ci wàll kooku mooy li ma dégg ñu ne dañuy ramasse fukki fan su fekkee am na laa wax de dama ko dégg ñu ne dañuy ramasse fukki fan yoo xam ni 46 départements yëpp fukki fan yi ku yor sa carte d'identité sax bu ñu la jàppee lu weesu 9 dañ lay tëj dañ lay téye man yaakaar naa loolu bu fekkee ne am na. dana ma jaaxal ndax loolu du méthode état état bu amee lu mu bëgg a faj agresseur yooyu muy jéem a jàpp ak di ramas ci guddi gi ñooñu bu ñu déggee loolu ñu wax ko ci rajo yi ak réseaux sociaux yi dañuy dem toog noppalu jël congé ni ginnaaw fukki fan yi dañuy ramas nan toog noppalu li ñu yor nan ko lekk bu fukki fan jàll te déedéet loolu kay état bu ko dee def ci mbetteel la koy def tey da ko war a def en continu du fukki fan rek jekk-jekk ciblé benn département def mat deux mois. raxas ko moom set wécc jékki-jékki ñun département bi ñu def ñu dem ci beneen boo xam ne kenn xalatu woon dañ fa dem ñu dem fa yaakaar naa noonu la liggéey ci wàllu sécurité mais du fukki fan yi ministre de l'intérieur nee na ñu di ko wax passé ku nekk see bu bu neuf heures jotee bul génn ci nangam nangam fukki fan lan lay lan lay fukki fan lan la mën a faj ci insécurité insécurité en continu la boo ko bëggee faj il faut nga wut ñoo xam ne guddeeg bëccëg loolu mooy doon seen liggéey ba ci ay civil marché yi yeeg xew-xew yeeg yëpp te Sénégal am na ko mën na ko xaalis bi nga xam ne ñu ngi koy fay ñeneen ak di ko pasar pasare mën nañ ci recruter ay nit ñoo xam ne bii leen formation boo xam loolu mën naa doon si léegi booleeg gendarmerie ak police hmm? kon loolu lañ ci bëggoon wax ci walla googu beneen tomb bi ci topp mooy euh, loo xam ni dañ koo taxaw seetlu ci président Macky Sall fan yële ci ginnaaw dafa def ay déclaration wala ay wax-wax ni euh, européens yi ak institution financières yi ci adduna bi nga xam ne adduna bi ko séq ñoo ko bokk ñi leble xaalis ci adduna bi anam bi ñu koy defee jaaduwul ndax réew yi néew doole dañ leen di lebal te diggante bi ñu leen fayee ko dafa gaaw lebal la xaalis ci fukki at nga defar ci teer ñun la dañ ko fay ci fukki at maanaam condition yi ñu leen di lebale nañ ko nañ ko yemale ak condition ya ñuy lebale réew yu mag ya allégé leen ko gën koo réaménager bor bi daal nañ ko na na ci ñëpp yem ko jox leen liñ bëgg ni mu toll ba noppi di leen yàgg ñu toog lu yàgg su ko mën a fay conditions yi lépp gënal ak man nag damaa am mbett lool damaa defee woon li Sénégal yor ci ay ressources ak nouvel élan bii gaz pétrole zircon or agriculture lépp Sénégal yaakaaroon naa ne président buy wax bu dee vision dafa waroon ni désormais bëgg naa def politique boo xam ne. li ma fi dese bëriwul xëy na mutul ñaari at waaye li ma bëgg mooy mbirum bor moom Sénégal tàggoog moom nu sukkandiku ci suñu ressources yi maanaam fexe ba def ay investissement ci biir réew mi suqali li nga xam mooy mbay mi gaz bi ñëw pétrole bi ñëw mu ni bor laa bëgg a tàggale Sénégal waaye dem bay jàmbat ci kanam institution financière yi ak ñëpp européen ñi naan ñëpp di ko dégg mu ni bor bi lañ bëgg nu yombalal na ko ak condition yi ñu lay lebale kon moom xel mi mi ngi ci toujours daal nan fas yéene takkuwaat te fas yéene di leb rek man boobu vision dëgg-dëgg jaaxal na ma dama defe day def nu ñuy tàggoo ak leb ba faaw loolu la yaakaar la lay wax mais pas di xalaat ay bretu maanaam institution financière banque mondiale ak yooyu ak ñi ni ñuy lebale Amérique di ko lebale France di ko lebale keneen ak keneen mu yomb ci ñoom ba doppi ñu may leen temps bu gudd ñu soog a fay léegi nañ ñu yemaleeg ñeneen ñi nun teenoo jéem a génn ci leb noonu am na am na ressource yoo xam ne buñ ko buñ ko loolu la soxla ressource ba dootuñu soxla lépp loolu yaakaar naa loolu moo doon vision mais pas nañ ñu yombalal bor yi beneen bi topp ci président li may wax Macky Sall ba tey Idrissa gànn Gueye ñu ngi koy jaajëfal di ko ñaanal ndax jëfam ji mu def ci mbirum LGBTs muy góor jigéen yi seen maillot bi nga xam ni seen drapeau bi mu bañee sol maillot ba ca Paris Saint-Germain yëngal na àdduna bépp. mais yëngalu ko yem ci daf ci liggéeyal lislaam ndax waxuma la jullit mais bari na xale yoo xam tey du ñuy jullit ñu ngi ci àdduna bi Idrissa Gana Gueye tax na ñoom ci seen bopp ñoo xam ne ndekete lii du lu baax bañ détesté mbirum góor jigéen donc foofu sur le communicationnellement liggéeyal na foofu lislaam te ñun ñiy topp li jëm ci monde islamique bi monde arabe bi bu ngeen gisee réaction yi am amul sax Sénégal réaction yi nga xam ne moo am ci monde islamique bi sax Sénégal dëgg la am nañu def mais ni mu amee ci adduna bi sax nit ñi bàyyiwuñ ci xel ndax ñu ci bari arab lañ doon réagir am na ñu ci ñëw indiwaat carrière am lu nañu wax ko ay imam xutba ci lu nekk ah kay mënut a ñàkk sëñ bi euh, dégg naa sax ku ci wax naan ku nekk ci benn équipe boo xam ni lañ koy financé xaalisu góor jigéen ñi nangam nangam waaye waaye sëñ bi Sénégal gi du nekk ku ne xam ne li quatre-vingt-quinze pour cent riba la te moom ma koy wax wér na ko ni tey jii xaalis am na xaalis bu muy lekk boo xam ni ci riba lay jógee. parce que système bancaire dina am compte bancaire moom te compte bancaire bi ku ne xam ne banque yi ci riba la ñuy dox fii dafa am yoo xam ne daal duñ ci sore daal beneen bi topp mooy bi mu defee loolu ba dégg naa li tax ma di ko wax ci Macky Sall tuitam dafa tuite wane ni mi ngi koy jàppale mi ngi ànd ak moom ci li mu def di ko soutenir ci ñàkk gi ñàkk sol mayo bi ak ku attaque yi mu ngi koy soutenir loolu li ma ci jaaxal mooy moom. weer ci ginnaaw Babacar Mbuub sëñ Babacar Mbuub ànd sàmm jikko yi def na conférence de presse ci Macky Sall recevoir gu mu recevoir gan goo xam ne góor jigéen bu mag la ci adduna bi man maa ngi photo yi ak yeneen foto yoo xam ne ngi ànd ak moom góor jigéen boobu weer ci ginnaaw Macky Sall recevoir na ko ci palais bi fii kooku kon nan c'est contradiction mu dewees loolu nga ni da ngay soutenir di sa gànn gi ndax la mu lànk ci affaire mbirum góor jigéen ba noppi di recevoir ponkalum góor jigéen moo xam ne adduna bépp xam nañ ko mënoon nañoo génne photo yi léegi ngeen gis ko mais Saxum ba dafa am lu ma ci wax loo xam ni lépp luy symbole lu jëm ci loolu ñun système communication bi boo ko xamee dëgg-dëgg war a ko utiliser. am na journaux am na télévision am na rajo am na ñoo xam ñëpp dañuy génn waa drapeau LGBT bi gis ngeen nangam nangam wala ñu génn ñaari góor ñi nga xam ne dañuy dugal seen loxo ci seen poche seen ginnaaw non non yow bu leen di xeex bu leen dimbali ci seen i nga di ko wone te bari na site yoo xam ne yëpp. bi ñu koy génnee dañuy génne wala naan Idrissa Gana lii lépp même numéro bi sax bu ñu ko génnee yow waxal ni Idrissa bañ na ko rek waaye nag bu fekkee ñoom seeni symbole yi ñu leen ko tasaareel bëgg xale yi xam ko bëgg mag ñi xam ko bëgg ñëpp xamee ko ñoom nga génnewaat sa site internet naan xool leen drapeau baa ngi nii lii war a su ko génne nangam non non yaa ngi yaa ngi leen liggéeyal moo tax Saxum Touba moom déedéet communicationnellement boobu baaxul bu dee télévision la bu dee rajo la rajo sax mënu cee génn couleur bi doo ko gis waaye télévision journal site internet maanaam ñu fexe seen symbole yi lenn ñu ko buñ leen di wax nañu wax mais buñ seen mandarga buñ ko génne fenn ndax loolu da ngay da ngay def promotion seen kii day tax nit ñi xam ko waaw. loolu moom erreur de communication dëgg am na ñu koy def waaw génne drapeau bi naan drapeau seen drapeau baa ngi nii kenn waru koo sol kenn déedéet <laughs> kon kay jël gëdi gëdi numéro 5 bi la Idrissa Gana Gueye di sol déedéet bu ko génne neel sa bañ na loolu rek seen couleur ba jeex na waaye bu leen dimbali nag luy def seen promotion seen i symbole ñoom loolu itam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax. beneen bi nga xam ne ci la ñu jëm si mooy li ma wax léegi rek euh, nan la ñuy mën a idris Idrissa Gana Gueye comme li wax Macky Sall président ba noppi loi boo xam ne dañ cee war a teg ay daan yokk daan yi ñu war a teg góor jigéen yi ñu lànk koo def ci assemblée national waaw ah, waaye nag li ci kanam moom yaakaar naa ñu bare bari ñi nga xam ne ëllëg ñi ngi xalaat seen loxom day jor dina féete suuf ñi ngi bàyyi xel yi ñu jute électorale yi ñu jëm si ci wàllu googu ne serait-ce que waxuma sax àdduna mais ne serait-ce que rek seen digg ak seen bàmmeel ak bàmmeel lëndamaayee ko diisaayam kenn ku ne saw carte ngi lay xaar nag léegi ci élection législative yi ndax am na loo xam ne lu mën a soppiku la daan yoo xam ne luñ mën a teg la ak yeneen considération rek yu bokkut yooyu yoo xam ne sax warees na ko mën a utiliser ngir loolu loolu dinañ ci def si beneen yoon kon daal mënumaa gis daal man ay bor ngay fexe nañ la ko yombale la ak noo koy gën a mën a amee ak noo ak itam mbirum di supporter gànn gi ba noppi di ko soutenir ba noppi di ko ki nga xam mooy góor jigéen bu mag adduna sépp xam ko mu ànd ko faram ñu wane ko photo yi ne fi nga di ko recevoir ci palais bi drapeau bi toog yéen séq ba ngeen ñaar président def ko Macky Sall def ko am na ñëpp gis nañ ko daal am na ñoo xam ne xëy na gisuñu ko waaye li ci ëpp moo dem gis nañ ko sëñ Babacar mu def na de presse loolu jàllee nag mu ñëw ci. beneen taxaw poñ boo xam ne war nañ cee am ab taxaw seetlu mooy lii ñuy wax parrainage muy bala ñoo wote parti bu ci bëgg a bokk da war a am nangam nit yoone ni euh, parrainé nañ la nga soog a mën a bokk loolu nag amatul sa raison d'être parrainage amatul yàlla wane na ci wane na ci baatinam dëgg dëgg dëgg ci parrainage bi benn mooy lu toll ni régime bii fi nekk ak li ci nekk ci ñu yàgg a ak xam na ñuy wotee yàlla lëndëmal seen xel yi bañ def erreur yi ñu def benn bi mooy ëppal nañu benn nit benn bi mooy respecté wuñu li nga xam ne mooy góor jigéen góor jigéen loolu ku la ko waxoon lu jiitu ñu koy def di ci attan teg daal teg ay millions ni loolu mënut a am yàlla bu lay lëndëmal bul xam nu muy jaare fii li mu wax mooy sa raison d'être nekkatul yeewi askan wi ak Benno Bokk Yaakaar. tey li ñu waroon def mooy fukki parti ak juróom yi ñu dàq yépp ni leen parenage moo tax daq nañ leen matalu leen ñépp la ñu waroon a delloosiwaat bàyyi parrainage reye ko parrainage moom amatu sa raison d'être parce que ginnaaw nangu lañ benn bokk yaakaar list nationale muy bokk yeewi askan wi di bokk ci biir Dakar loolu kon mooy maanaam parrainage amatul sens sa raison d'être amatul ndax violé nañ loi boobu loolu nag ñoo ko bind teg ñun xam ñu ko loi bi ñëpp a ko génne boo ëppalee benn nit waxuñu boo ëppalee genn wàllu nit buñ noonu boo ëppalee fukki nit wala fukk ak juróom waaye benn nit dong bu ci ëppee amoo droit bokk loolu yëpp dañ ko bind teg fi ñu ni benn bokk yi ëppal na benn nit Yewwi Askan ñu ni respecté wul góor jigéen góor jigéen ci niñ ko war a toftalee ci biir Ndakaaru kon ñaari liste yi buñ ko buñ ko reyewul keneen kuñ ko def dañoo violé loi boo xamante ni bi Sénégal bi yépp lañ ko teg parti yi ci bokk yépp lañu waroon waat mu jeex parrainage moom amatul sens moom bu fekkee nag ci nit kuy raisonné laa wax kuy raisonné normal waxuma nag ci politique politicien ak ñi dugg ci débat yeeg tey di lay fi el article nangam nangam interprétation du double waaw loolu daal waxuma ko xëy na boo gisee lu mel ni aar Sénégal kenn defu ko loolu kenn kenn génnewu ko ci ñeneen ñi nga xam ne yeneen parti la ñu génne leen ci. parce que aar Sénégal bu dul parti bu mag itam bu dul coalition bu mag itam ña ca nekk ay ponkal lañ diggante Thierno Alassane Sall nag ñoomu mu àndal ñëpp xam nañ ñi ay tet lañ <laughs> ay tet moo fa nekk moo tax nde bu ñu leen mënoon a génn xëy na kon génne leen loolu laa ci jàngate man nañu génnee ñeneen ña waaye nag am na ñoo xam bu ñu leen génnee xëy na mën naa am ci lay gën a woyof waaye am na ñoo xam nag génne leen du yombe noonu ah du yombe noonu waaw kon li mu wax foofu rek mooy ci jàngat ak ci analyse mooy géeg naa sama wëllëre maître Amadou sal di borom xam-xam bu mag di avocat di wëllëre ndax noo ko xamee woon ñu nu xamee woon ci kër soxna Bintu Mbàkke mu seen dara xaraloo bu yàgg ci jamono yàggee daan na fa fekk ci la ñu xamalee woon muy suñu wëllëre di borom xam-xam di avocat bu mag maître Amadou sal dégg naa ñu laaj ko mu wax ni lii. conseil constitutionnel def mu juróom-ñaari change yi kenn waru cee teg baat ndax ñoom dañoo interpréter te li yoon wax mooy bu ñu interpréter ñoom juróom-ñaari change yi muy attekat yu mag yooyu juróom-ñaari ba noppi kenn waratu cee teg baat waaw xanaa bu ñuy interpréter boobu ci lu am vide juridique wala lu lëndëm la ñuy interpréter loo xam ne kenn xamul loi bi waxu ci dara lu loi bi waxul dara wala la mu wax lëndëm xanaa loolu la ñuy interpréter waaye loo xam ne loi bi wax na ci leer nañ boo ëppalee benn nit amoo bokk. boo respecté wul góor jigéen waroo bokk loolu est-ce que laaj na interprétation d'accord bu interprétation da ak it interprétation bu dee loolu ñi nga xam ñi ngi tiit sax naan est-ce que interprétation boobu constitution constitutionnel def ndax bu ëllëgee mbirum troisième mandat bu ko neexee du interprété daal di nangam déedéet bokku ñu de <laughs> dina ma dina ma indi ci leeral tuuti foofu juróom-ñaari change yi muy juróom-ñaari attekat yu mag yooyu nekk constitution am nañ fi seen juróom-ñett fukki moroom yu mel ni moom yoo xam ne dàq ñu leen a jàng wala ñu dàq leen a jàng dañ leen a tànn nag fal leen waaye am na fi juróom-ñett fukk bu dee cent am na fi quatre-vingt pour cent yoo xam ne xam-xam bañ yoroon moom la ñoo yor am na ñoo xam ne ñu ngi ci fonction ñu ngi liggéey am na ñoo xam ne retraité nañ ay sages yoo xam ni dañoo nekkul ci conséquence waaye sont des sages te léeg nga toog cee kenn mu waxal mu mu leeral la ni la ah nangam nangam. kon bu ñu nee sage rek mooy nañ ni sage ya ñu tànn yóbbu leen fa mais am na yeneen sage yoo xam ne ñi ngi toog seen kër retraité nañ ak sage yoo xam ne ñu ngi ci en fonction kon nag li ma bëggoon wax foofu mooy li ñuy xalaat naan du piège ngir troisième mandat maanaam troisième mandat moom daa amul droit dem ci conseil constitutionnel ndax kii fi nekk nii moo indiwaat référendum ne ñaari mandat kenn du ko weesu yemu ca de lu ñu bind la waaye mu ni man ci sama bopp damaa xamul lan moo waral coow li ndax man wax na ni def naa benn su ma defaatee benn bi te falaay yem mënatumaa dem band bi bu ñu ci wax bu ñuy wax rek ñu teg ko fii nit ñi ñëpp am nañ ko mi ngi circulé ci whatsapp yi yëpp nit ñi am nañ ko ci réseaux sociaux yi Macky la ci boppam waxuma li loi bi wax nga xam moom bañ koo bind ba noppi waaye moom ci boppam moo jël kàddoom ni lu tax nit ñi di indi coow ci loolu man nag loolu sax jaaxal na ma loo tax daawuma ci wax moo tax bu ma gisee débat ci bi ñuy wax troisième mandat ndey mbill gi ci boppam moom toog na nee na moom it jaaxal na ko lu tax ñu ciy wax li ko war na ko jaaxal ndaxte loo xam ne yow wax nga ni même bu fekkoon ni danga nga da wax mais li am solo mooy loi bi moo leen munta nekk munta nekk te loolu li ma ciy leer rek tënk ko muy mbirum troisième mandat man du ma ci sori mooy réew mi bu fekkoon ne am na ku ciy jéem a jàpp ngir loolu am bu dee àttekat la wala ku nekk ci wàllu kaaraange gi la na ko xam ne bu dee senegal yi téeméer lañ. ñooñu vingt pour cent dong lañ ci doon te ab peuple kenn du jàkkaarloog moom peuple kenn du jàkkaarloog moom te yàlla léeg-léeg dina waxoon naa leen ko fi ci benn waxtaan ni leen yàlla nee na tootil mulka man tashaa'u wa ko mulka mënta tashaa'u yàlla nee na nguur gi ku ko neex la koy jox waaye néew néewul ku ko neex laay koy jël ci moom déedéet même bi mu koy jël xam nga lu mu wax tanzi'u xam nga tooti mënoon na ni tootil mulka man tasaaw wa taqudul mulka mi man tasaaw taqudu maanaam jeu de mots yooyu tooti wa taqudu waxul loolu tooti wa tan tanzew maanaam dama koy foqar ci loolu nag yàlla léeg-léeg boo gisee ma di ko def injustice yàlla dana ba tax mu foqar ci ak nguur te loolu xew na ci àdduna bi xew na ci Afrique ba tey yàlla nee na nguur gi de ku ma neex laa koy jox waaye ci ku ma neex laa koy foqarce foqarce la wat ci laa koy nangoo ci laa koy rocce néewul dama jëlaat dama néew jox naa la ko dama koy jël déet foqar ci la wax nguur foqar ci nag dafa am muy teg loolu yëpp nag li koy war a injustice mën na ko indi ndax su loolu laa di wax ci bi yàlla buy sanctionné noonu lay sanctionné xam nga li lëndëmal xeli coalition yii ba tax ñu def lii te xel mënu ko xalaat ba mu indi coow lii ba pare nas moom amatul sens moom amatul valeur amatul sens loolu rek war nañu xam ne yàlla suñu borom xarañam foo ko takk wees na ko. kon moo tax ma leen mbirum troisième mandat loo xam ne tey benn bakkan rek wërta faatu ngir lool te mu wér leen ni tey bu ñu ko doon càpp ci réew mi buñ bëggee ni tam dafay taxaw réew mi dina egg foo xam ne kenn mosu koo gis loolu am na ci ñu yor kaaraange gi ak ci ñu yor yoon seen ngor ak seen jom ak seen bëgg seen réew jarul leen ko moo tax loolu jëru sax di wax dama ne am na ñu ne ci réew mi ñoo xam ne ñii àttekat yi muy ay sage muy ay magistrat muy ay takk der yëpp am na ñoo xam ne seen àdduna jarul leen mukk mukk mukk mukk Sénégal di egg fenn fi ngir troisième mandat xalaatuñ ko te loolu ko ko bëggoon itam doo dajeeg ma Samba doo dajeeg ma dem nga ne peuple bi ci bopp ngay dajal te peuple kenn mënut a xeex moom gis nañ réew yëpp gis nañ ko lu nit bari bari doole nit sax bariwul doole lu lu ñu jàppale jàppale nit peuple la kenn mënut a dékku kon yooyu dañ ko teg fi suuf moo gën bitim réew jàpp caag. keneen jàpp ci ak Masamba jàpp ci ak peuple la kenn mënut a dékku peuple du kenn mënu ko dékku kon waxi troisième mandat sëñ bi dañ ko teg fële moom mii nday mbili ki teg na ko fële wax na ko ñaari yoon mënees na koo génne tegaat ko loi bi wax na ko nit ñi seen bopp sax bëgguñu ko sa xel sa xalaatu ci kon loolu lañ ci bëggoon wax ci wàllu googu am na nag lu may bëgg a jeexale mooy euh, di nga ko gis ci artistes yi ak ci journalistes yi ñoo xam dañuy incarner les valeurs du wane ni sëñ Touba laa gëm bu ñu waxee tudd sëñ Touba nekk ci média yi wala feneen ak feneen ba ci yàgg ah ñu nekk ci wàllu politique wala leneen wala nga gis journaliste bi dem ba ci yàgg mu ne non man léegi bàyyi naa rédaction bi fekk na jox nañ ko xaalis bu dul jeex mu créé leneen di liggéeyal di liggéey régime loolu am na xam nañ lépp li xew da ngay gis journaliste boo xam nekkoon ci rédaction nekk ci place di fa liggéey jékki-jékki beru yaru jëfi boppam déedéet dañ koo financé lu dul jeex mu ni war nag man dama neutre sama yëfi bopp laa déedéet bu toogee ci plateau di wax rek nga xam ne kii yorul fi boppam dafa dañ koy liggéeyloo te looloo xamee nañ ci ñëpp lañ ci xamee waaye nag di incarner valeur mouridisme war ne man ci Serigne Touba laay sukkandiku ak mooy sama référence bu pare di def yenn jëf yi loolu moom nit ñi xam nañ ko te kuñ gis nga def ko tam waxuma ni kat waaye kuñ gis nga def ko dañ ko xam te dees na ko wax waaw Serigne Touba kuy référé ci moom kuy référé wu ci moom di incarner valeur mouridisme mooy islam rek waroo def ni yenn politiciens yi def. mooy workat yi nga xamante ni dañu jékki-jékki nit ñi wote ànd ak ñoom wote ba noppi ñu bàyyi leen fa dem feneen fekk régime bi loolu nag day am ndax adduna yàlla ko bind noonu parce que mbirum question sidil la deret la deret la waaw li ngeen di gis télévision yi rajo yëpp ak débat yëpp am na ci yoo xam ñi ngeen di gis ñu ko def ci deret ji lay doon waaw sidil gi fi mu bokk lay doon cosaanam lay doon yenn wor yi ko man moom sa deret lay doon <laughs> loolu adduna loo tax ñu baat noble am loo lu mu noble ñëwul pour rien baatu noble ñëwul pour rien waaw noble dafa am bu wér gar am bu wér yax bu rëy am bu lu wér la am na loo xam nag bu nekkul ci yow lu neex defal mais nit ñi dañ koy constaté xam ko te boo demee sa jabar lay topp xëy na ak sab jarbaat mu jeex ñi nga xam ne ñoom nga àndaloon war leen ñoom <laughs> ay magi jëm lañ defu ñu jënd jàpp leen loolu moom loolu lañ ci wax duñ ci sori gis nañ ko bu fetaay kon daal loolu lañ buggoon a wax wala ni leen ñi toog ci télévision yi wala ñuy liggéey feneen di incarner les valeurs ci wàllu lislaam rawatina ci yoonu muridisme sëñ sëñtuwaa sëñ nangam dem ba ci caag ñu bari nekk feneen dugg ci politique bi wala ñu dugg ci leneen wala lu ma doon nañ ko def mën nañ ko def de waaye bu adduna de mukk ba ñu bett kenn ba nit ñi naan bett diw bett na te ne ñëpp a ngi xool am na it journaliste xam bërki dem rek gis naa ko ci benn débat benn journaliste boo xam jigéen a ko invité muy toog di wax dem ba ci yàgg mu ni même Macky Sall mun na bàyyi kii bi mu jàll su ko defee léegi suñ demee ci élection yi sax su ko gagné moom mun na régler quelques trucs pour la constitution pour troisième mandat man bi ma xoolee waa ji dama ne xanaa kii du waa ji nekkoon ci rédaction sagam xanaa kii du mooy ki doon naw maanaam yow daal jàpp nga ne ñoom comme lu lu kenn xalaatul bu ñu demoon ba sax xëy na am ndam ci législative yi war na cee mën a régler quelques trucs de ci constitution bi ba troisième mandat mu mu mu mu validé ko waa ji di xool ba ci yàgg dama ne waaw kii est ce que ki ma daan dégg muy wax la wala déet ab nekkatul léegi journaliste dafa beru yor yëfi boppam li mu wax lépp ci débat bi boo ko dégloo xëy na sénégalais bi jaay beñe ci caaro yi wala kay jaay guro ci sànd ga ngi lay jébatul waaye ñi nga xam ni quatre-vingt pour cent am na ñoo bu ko xoolee dañ naan waa kii xanaa dafa yeb nit ñi man dañuy liggéeyal benn régime ba pare boo waxee ñu ne ah man nag je suis neutre farumu fenn mais nangam nangam te li ñu wax lépp ci débat bi da nga xam ni ñii waaw ah, man nag li ma nekk mooy lan dégg ak Sénégal. autorité bi muy reconnaître mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasul mooy bu yonent bi mooy yàlla suñu borom man dëgg laa faral ak Sénégal ku ànd dëgg faral Sénégal nag ma faral ak yow moom dëgg ak Sénégal rek dëgg ak Sénégal képp ku ma xam ne yàgg ci wàllu foofu sax laay jeexale Serigne Alassane ci waxtaan wi ndax dafa am benn audio boo xam ne dañ dama ko dégg fan yi ñu ne tasaaroon na ci réew mi yëpp am nañu ko am boog Mouhalim info def ko. <laughs> ndax dama déggoon euh, Ousmane Sonko parti bi ñu tuddee passif ni murit baatum ndigal ni mu kolewoo ak murit am na dëkk yu tudd ndigal am na nit ñu tudd ndigal ci yoonu murit Pastef itam ku ko xam-xam ni baatub olof la mais dafa dafa nekk ci yoonu murit nekkin woo xam ne daf cee basé wu Pastef ku wax Pastef nga man na bi ma déggee mu tuddee parti bi Pastef xaw ma ko de mosuma koo gis mais ma ne waa kii lan la inspiré wu ba tuddee baat bi Pastef Pastef mooy dogu mooy détermination mooy ngëm-ngëm baat bi dafa ëmb lu baree bari moom Pastef waaw woy ci dara dogu ci ngëm-ngëm dogu loolu yëpp la léegi nag man bi mu ko tuddee moom te man xaw ma ko ma ni waaw kii ku ko jox baat bi ma dégg benn ojo rek bërki démb ñu teg ko danaa wax sëñ Alassane nga teg audio bi nit ñi dégg ko ndekete réew mi Pastef moo koy defar loolu nag waxuma ko ojo bi bu ngeen ko dégloo di ngeen dégg wax ji waaye gëm naa ko ndax dañuy Cheikh Saliou Mbacké moo doon wutlu ay illiir yu ñuy bayee 93 kii nettali dama koy tënk rek di ngeen dégg nettali bi dong yi ñuy wut illiir yi ba mat 300 yi ñuy bayee ñu ne ko war ngaa ñaan nag si mbir ñaan ci réew mi ndax réew mi métti na lool tar na lool ngir nawet bi ren mu baax mun leen réew mi de dina baax ci mbaaxu yàlla yàlla dogal na ko ba noppi dina defaru waaye nag ñaan leen ñaan leen ñaan leen a bokk ci ñi koy defar waaye dara mënu ko defar nag loolu Pastef Pastef rek koy defar sëñ Saliou la ñu wax di ngeen déglu ojo bi léegi man waxuma ko déglu leen audio bi ndànk nag laa wax déglu leen attentivement ma ni nag man kon man de yàlla na da dama ginnaaw damaa bëgg bokk ci ñi defar réew mi ah loolu kon maa ngi soog a xam ni baatu Pastef bi fan la ko waaj jëlee mais ñi nga xam ne ñoo doon wax ci audio bi itam nee nañ mosuñoo gis Ousmane Sonko waxuñu ko xamante loolu daal du ma ci nettali nañ bàyyi ojo bi ngeen déglu ko su ngeen dégloo ki ko doon nettali ak donga ya nekkoon xel comme sëñ Saliou doon liggéeyloo bañ di ko ñaanloo mun leen réew mi moom yàlla dogal na defaroo gi ba noppi waaye nag positif rek koy defar na ñaan nag bokk ci ñi koy defar loolu daal dama ne woon dinaa ko teg ñëpp déggandoo ko. Ah, Mouhalim Info ku ñu wax Serigne Cheikhouna Mbacké kenn ci donga yi Serigne Saliou yi nekkoon ca xel kom moo wax lii ñuy bëgg a wax ci benn texte la ko def ci. Facebook waaye nag mu nekk loo xam ne actuellement wër na réseaux sociaux yi moom daal def ne li ma yéem ci Sonko ci Ousmane Sonko kon lay wax ci atum 1993 ba ma nekkee xel Xelkom dafa am bis sëriñ Saliou yónni ma Touba man ak sëriñ Fallou Gueye ak Baara Jaxate ngir nu dem Touba jënd ay ëllëg ak radu ngir waajal nawet bi bi nu demee ba ñëw indi 300 ci ay ëllëg Serigne Fallou ne Serigne Saliou Mbàkke fii mu ne réew mi metti na lool te nawet bi ñëw nanga nga ñaa na yokk ñaani rek sëriñ bi nenu góorlu leen bu baax ndax ngeen bokk ci ñiy defar réew mi ndax réew mi moom dina defaru te yàlla dogal na yàlla dogal na ko ba noppi moom sëriñ Seexuna nee na mu ne ma ne ko Mbàkke na ñu ñaanal ñu bokk ci ñu bokk ci kon sëriñ yu nenu Pastef képp moo koy defar léegi moom wax jooju fa la jeexe mu ne man nag li ma jaaxal te yëm ma mooy laaj naa Serigne Fallou Gueye ndax yow yaa wax Sonko mu tudde pas mu tudde partem bi Pastef mu ne ma xamul Sonko sax ma laaj Baara Jaxate mu ne ma mësul gis Sonko man li ma yéem mooy nan la def ba xam ne Pastef mooy defar réew mi man nag faruma ak kenn waaye li ma yéem daal loolu bokk na ci Mouhalim Info. moo tax bi ma amee nag équation ci baatu positif bi ma déggee wax ji nag ci laa jànge lu bare bare bare bare loolu nag noo ngi leen di sant di leen gërëm yi lii ma doon al bayaan léeg-léeg nit ñi ah sëñ bi euh, mën nañoo wàññi vidéo bi ma leen yéen yéen a gis ay live yoo xam ne ñaar deux heures de temps lay doon nit toog di ko seetaan wala ñu def vidéo boo xam ki mu ñor ñi mu ñor moom guddeeg bëccëg rek ñi koy topp waaw lu ci mën a xew daal lii leen bëggoon a indi ci al tënk ko rek nag nda des na lu bare bare bu ñu ñëwaatee rek incha allah indi yeneen yi xam moo ci des jërëjëf sëriñ Alan Alassane ñoo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp Saxum Touba seetu murit yi bokki taalibe yëpp jataayu murit saadix bi jàlloon na kon incha allah ba beneen yoon seen jataay bi ñu tuddee albayaan wassalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu سكرته لأنه قد ساخني لوتني به نفى ما أنفني